ay ñu ngi leen nuyu euh, di leen ziar yeen ñi ci forum Sport euh, ñu wara a ci benn vidéo wax ci euh, Iliman Jay ak ki nga xamne moy Ismaël Ismail ñu andi di entraîné nekk ci benn complice bo xamne ne complice bu exceptionnel la ñu mëna wax tay na groupe bi presque li manqué ba loolu lepp ñëw na def na seen première séance d'entraînement mu nek entraînement bo xamne entraînement bu réerée la xëy dañuy xaar fi ñaari fan bu entraînement yi gëna daw ñu ni leen onze par bi mais laata ñu gëna a ci loolu dañuy wax yéen ñi gën ci bi le page yi ngeen abonné da ngeen bës cloche de notification bi pour ngeen am suñu ay vidéo au temps réel fii sama gars yi Iliman Ndiaye ñëw na jàkkaarloo ki nga xam ne mooy Ismaïla Jacob ñuy entraîné latéral ak excentre wala latéral ak numéro 10 mu nekk benn duo boo xam ne duo bu dañu opposé wu ci entraînement waaye dañu yor bal bi di paasante di meñce tey mu nekk image boo xam ne image bu rafet la ñëpp ci bëgg waaw duñ def loolu rek suñu équipe bi am ci yaakaar bu baax am ci yaakaar dañu continuer nekk ci dynamique bi ñu nekk xam nga bu ñu bëggee mën a gañaa euh, yenn yi nga xam ne mi seen kanam te am nañ ci yaakaar bu baax a baax euh, bentoo équipe euh, nationale bi dana gañaa lu gën a bëree que lim gañaagun ndax benn torfe lañ gañaagun te war nañoo gañaa ay torfey torfey torfe yoo xam ne wurul yàgg ndax équipe yi ñu yor équipe bu am doole la bu am mental fort la